yàlla maa ngi laa mooy tey ngir sama doyadi sa jaam la waaw waaw lépp loo di def rek def ko ci turu yàlla ndax ci gëm la bokk comme yàlla topp ak mooy la bind kay bu teyee nga topp ëllëg nga mooy bu ci ne boo ko dee def rek ni ko ci sa tur laa ko def waaw waaw su ko defee mel na ni dañ ko wax loolu mu ni lu tax yàlla war ci moom may def ci turam mu mel na dañu ko tontu boo kellaaj booba ni ko ndax mooy ki nga xam ni moo bind nit comme moo bind nit nag nit warul def lu mu boole wul ak turam euh, mu ni moo bind nit ci lumbu deret naka la bind nit ci lumbu deret foofu nag la ñiy wut ñépp ci wàllu médecine ak wàllu leneen ak di tëral ak di tëralaat mënuñoo dox ba génn foofu waaw nga xam ni boog ñoom itam seen coono ba jaamu yàlla ëppatu ko waaw ndax xalaqal insana min alaq naka la demee nga top ko ba faw ci liggéeyu yàlla nga nek waaw su ko defee iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam lépp lu aju ci njàng luy neexal xam-xam mo xam loy bind la yàlla na fekk sax la nga bind amul wante fexe nga ba sa xel tëral ko mooy fen wu dagan moom la ñuy wax mad al maddatul xatabiya ci wàllu mantiq bind lu amul waaye ku ko jàng kontaan gindikoo ci fen wu dagan la mo ci la romancier yi di sukkandiku di bind seen roman yi mu dagan dina am roman bu nga xam ni ci xaqiqa lañ ko teg mais am na roman bu nga xam ni borom moo koy xalaat rek jeneer ko ba bind ko pour nit ci man ñi jariñu nekkul mais duñ ko ko bindal ci bàkkaar lu tax dafa dugg ci almaddatul xatabiya moo tax du nekk bàkkaar ci la waykat yépp dugg li ñoo wax ba di ci xuus ba mu sore yooyu yépp kenn du leen ci bindal bàkkaar ndax àllama bil qalam ci lay dugg waaw ci lay dugg àllama bil qalam ci lay dugg yooyu yépp nga xam ni wàllu xam-xam boog ci njëlbeenu wax ji rek yéppam dugg na bi ci wàllu recherche scientifique dara desu ci bi nga xam ne nag wàllu littérature rek la ca la woy dugg ca la jeneer dugg ca la leneen dugg yépp dagan na yépp nag euh, Cheikh Sukayrij am na benn téere bu mu bind tudd na ci xam-xam yépp waaye ci biir jamono xam-xam yépp daggan nañu ci biir jamono waaw xam-xam yépp daggan nañu ndax nangu naa ci làmmiñu Cheikh Al mu ni seen maam nee na démb la njabar aramoon wante tey daggan na waaw mu ni ndax ku ko boolewul ci say gànnaay ku ko man léegi la waaw waaw ku ko boolewul ci say gànnaay ne naka ko man léejël looloo tax ni mu ñu daan jàngale euh, alquran ak hadis noonu la ñu daan jàngale njabar waaw waaw benn werante nekku ci nee su ko defee nga xam ni boog euh, noppalu daal waratul kenn képp kuy woote ni ci lislaam nga bokk bés bu nekk li Cheikh Al Hadj Malick wax nee na mooy moom bés bu nekk mu am bind benn bind ba sëriñ jàngal ko ko walla gisul sëriñ bu ko tane ci wetam moom mu seetal boppam dend ak keneen werante ca ak moom ba dëgg génn ca walla gisul ka ca tolloog moom ci wàllu werante xëy na doom yee fi nekk mu di leen jàngal jàngal bi mu leen di jàngal fàttaliku la mu jàngoon la muy bind ci moom ba tey rek waaye nee na bés bu xëyee rek am bind du jëlal mukk loolu la cheikh alxaaj malik waxoon waaye jëlal moom musiba la waaw su ko defee nga dégg ci ni yàlla boog bi mu bindee mbindeefam mu di mbindeef bu mu fonk tudde ko nit waajal na ko waajtaay wu mën a tax bés bu nekk xamam yokk ci bu ci yitteem àggee bu ci yitteem àggulit mën na fexe ba bés bu nekk xamam wàññeeku waaw ba tey mu di musiba rek ndax itam nee na am na benn aaya ci alquran ngeen di ko jàng nu di ko jàng nee na boo ko seetloo ba ci biir rëy ga wa huwa alladi axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna cheyan wa jaala lakum alsamca wal absara wal afidata qalilan ma tashkuruun qalilan ma tashkuruun waaw waaw ndax ashukru mooy al itiraafu bil jamil noonu lañ koy firee ci tawxid ashukru moo di al itiraafu bil jamil yàlla nee na buur boobule moo leen génne jamono yi mu leen di génne ci biir waajur yi fekkul ngeen xamagum dara waaye booba fekk na mu def ci yéen yi war a bijj xam ëllëg waaw loolu yàlla teg ca nag ne xalila ma tashkurun na daal mësuma gis ku néewub cant comme yéen waaw nga gis boog ni li ñu wax ni xam-xam njëkk la te njëkk dañu koy nangu dugal na yépp waaw su ko defee bu yàlla ne nopp a ngi ci yéen bët a ngi ci yéen xol a ngi ci yéen tegtal na ci ni jox na joxe na ay jumtuwaay yu ñu mën a gis ak ay jumtuwaay yu ñu mënul gis jumtuwaay yi ñu mën a gis mi ngee sàkku xam-xam te mooy nopp ak bët ca fa ñu war a yem ñoom ak jumtuwaay bu kenn gisul te moo di xol moom itam mi ngee sàkku xam-xam ca fa mu war yem moom itam waaw nee na muy jumtuwaay yoo mën a làmb ak yoo mënula làmb faatabiru yaa ulil absar waaw faatabiru yàlla ne na ngeen réfléchir waaw mun ne waxuma ñëpp kat yaa ulil absar laa wax yéen ñi am intelligence su mëne a réfléchir na ngeen réfléchir waaw waaw ñi ko sàkkuwul wutuñu ko sama responsabilité jeex na ci ñoom bu mu ne faatabiru yaa ulil absar la wax waaw nga daal gis ni boog fa ñu jëm yépp ëppul nga jooxe faratay sant nga jooxe ko pour jëme ko ci ki yeyoo cant euh, cant nag dafa yemul fenn rek wa qalilu min ibadiya shakur اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور غورغي موكو دان فيري آه نانا شاكر mooy ki nga xam ni bu amee sant bu amul jàpp njàmburam nee na kooku Shakir la tudd wa qalilu min ibadiya shakur yàlla nee na xam naa ci nit ñi ni ñi ci nekk shakur ñu tuuti lañu shakur mooy ki nga xam ni bu amul te it fàttaliku ni yàlla ñëwoon na démb nee kooku moo di shakur yàlla nag nee na ñu tuuti lañu waaw ñi nga xam ni daal bu ñu amee sant bu ñu amul noppi ne ñoo ñoo bare waaw waaw